ما يسرع الأسخان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يسرع الأسخان قد فجاء نورا ساتئا ملا محمد صلوات الله في أبد عليه salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki àdd ak TV ñu ngi am mbégte di nuyu leen ziyaara bu baax defe naa nag ñii nu jàkkaar lool bu ngeen leen gisee ci waxtu yi xel dina dem ci bis bi ñu dëgmal fii ci Argentine doon bis boo xam ni it mooy ndayu bis yi ni ñu ko mën a waxee bis bu ñu jagleel xasaayid yi ci taxawaayu fédération bi nga xam ni moo nekk Argentine lëkkale mboolem daayira yi yëpp ñu am bis boo xam ne nag dañu ko jagleel waa ba di ci taxawal xasaayiti sëriñ bi di ko fa dundal bu ko defee loolu moo ñu indi fii ci kuréel boo xam ni bu ñu ràññee la fii ci réew mi muy kuréelu capital ci euh, njiitul ñi ngeen seen nii sëñ Xaadim ak sëñ Modou Sène sëñ Cheikh ak sëñ laat ak ñi nga xam ñoo nekk seen ginnaaw ñoom sëñ Jili incha allah xam naa sëñ Xaadim dina présenté ni ci des bu defee li ñu indi tey mooy rek ñu xam seen waajaay mën nañ ci tudd ni bi ñëwee ñu ngi leen fekk ngeen di répété ci bichu alterné ci temps boo xam ni it bu yàgg la loolu macha allah sëñ Xaadim ko defee ñu nuyu la rek laaj la naka la kuréel gi waajal ngir bis bu am solo boobu incha allah daañu dugg ak sëñ Modou ci mu wax ñu dëgg-dëggi kuréel gi ci ngeen doore ci ay jaar-jaar yu sew ba yàlla def tey ji ngeen ak si fii macha allah man jàng loo xam ne mën ngeen ko jàng fu ne bisimilah ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax mbokki taalibe di jiital ci siyaar ba nuyoo bi xalifatal am sëriñ si daar Moxtaar ko fi lool naka noonu ñu ngi ziare sëriñ Cheikh Jëbb Fall suñu borom yàggal ko fi lool teer ñu ngi ziare waa Touba Argentine TV ak seen liggéey bu rafet ñu ngi ziare suñu jawri ñi ñu feggool di sëriñ Mot Seen Cheikh Abdoul Ahad Eh, Serigne Cheikh mi lay bu baax a baax ak waa kuréel gi yëpp daal bu ñu limee dañuy duñu matal daal ñu ngi ziare sunu baay sunu jawrin seriñ Baye Ibrahima Baye ñu ngi koy siyaar bu baax a baax comme noonu nga ko waxee rek ci question bu am solo comme bisu xasida moom maanaam ñu ngi ci ñu ngi ciy liggéey daal liggéey bu am solo boobu ba léegi wax dëgg fa la depuis biñ ko biñ dëpp daal boobu ba léegi ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo. ak kuréel liñ ko fegul yëpp yi nga yi nga xam te ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu ci mel ne waa Touba Constitution te Serigne Bass Diène jiite ko ak uh, waa kuréelu Morone ak Linière ak kuréel yi nekk Buenos Aires yëpp xam ne saa su nekk daal amatuñ jot ngir maanaam waajal bisu xasida yi te bis xasida yi dafa nekk maanaam bis bu am solo bis nekkul bis boo xam nekkul lu ñu war a daal dafa nekk lu ama am solo ci taalibe yi ndax it maanaam seriñ bi da xasida yi mooy ay tànkam kon it yaakaar naa ne war nañ koo bàyyi xel baax a baax xool naka lañ koy waajalee baax a baax ndax uh, karaamati xattu yoddu lax nee na sa ama karaama mooy sama bindum loxo kon maam loolu dafa am solo li ci am li lan li topp mooy sëriñ bi xasida da cee sonn da cee sonn da cee sonn lool lool kon maanaam ñun ñun ñi nga xam moom dañ dañu ne dañ ko yaakaar kon nañ nañ ci gën a góorgóorlu gën a laxasaayu yaakaar naa ne maanaam war comme comme ni ko jëwriñ di soññe rek Buenos Aires maanaam le neuf le neuf war nañu wax ne maanaam ci koy maanaam fan lañ nekk ci dëkk bi waaw kon a ndax sëriñ bi dafa waxoon atibun raqibun fi jazirati ma yomba maanaam loolu dafa am solo maam xasida yi ñu xam xasida yi maanaam dayo dayo xasida yi maanaam li ma ci soño daal mooy ñun ñëpp nañ ko wàcc kem kattan kem kattan kem kattan moo tax it boobu léegi wax dëgg faal ñu ngi ci répétition yi suba ngoon guddeeg bëccëg maanaam saa su nekk fu ñu toog daal ñu ngi koy xalaat di xool maanaam nu yëfi maanaam di nuñ xool daal ba ba ba mu réussir loolu saa su nekk daal ñu ngi ciy dox kon xam naa dañuy jox suñu jëwriñ sëñ Mor seen mu gën a leeral ci wàllum kuréel gi fa mu tàmbaleeg yooyu daal bu soobee yàlla. waaw maanaam xam nga bisu xasida maanaam dafa gën a làmboog ñu gën xuus maanaam ci daaju mag ñi da ci am solo bu baax a baax. ndax da cee am solo bu baax a baax a baax gën a bàyyi xel daaju mag daal du ñàkk nag daaj yoo xamante ne waaw ci waa ci waa kër sëñ Massamba yi ak waa kër sëñ ma yëpp ak yeneen ay sëñ Moussa Diop daal maanaam ñu ñu gën a lépp daal lépp daal génnul mag ñi waaw lépp daal génnul mag ñi njàng mi lépp génnul mag ñi kon daal ñu comme noonu nga ko waxee daal njàng mi génnul mag ñi daal ndax bisu xasida daanaka nekkul loo xamante ne nii nit ñi du du lu ñuy fowee du lu ñuy fowee ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax xasida yi sëriñ bi moo ne mooy samay tànk kon yaakaar naa ne ñun xasida yi mooy sunuy sëriñ waaw ku ci nekk nag waxin la daal waxin la maanaam dañ ko war a jàppee demi sëriñ bi waaye ku ci nekk am na wasila waaye xasida yi sëriñ bi lañ ko war a xoolee ndax xasida yi ay jëmm lañ waaw kon maam ñu bàyyi xel lool bu baax a baax waaye incha yooyu maanaam ñi ñi ngi ciy liggéey ndax commencé nañ ci commencé nañ am yuñ ci liggéey daal xam naa ne bu ci kanamee daal incha allah bu soobee yàlla loolu yëpp dina feeñ incha allah. waaw salaamaaleykum wa sëñ góor ñu ngi lay ziar bu baax a baax ci laaj bi ñuy laaj. wax dëgg yàlla sawar nañ cee tontu kon ñu ngi jàkkaarloog euh, télé télé Argentine TV ñu ngi ko ñu ngi jàkkaarloog ñoom ngir leeral maam lañ moo <clears throat> waral liggéey bi ak liggéey fa mu tàmbalee wax dëgg yàlla ku ne xam na ne ah bitim réew moom eh, liggéey Serigne Touba lu fi lu fi dox la ndax ku xool kuréel gi ni mu taxawoo léegi rek xam ne mi ngi dox bu baax a baax ndax départ ba ku ne xam na ne xëy na métti woon na ndax daanaka bi ñu fiy door a ñëw. di ñu fi fekkoon daanaka am jàng maa ngi ñoom a yem daanaka xamuñ maa yeewuñ ci woon baax a baax ginnaaw bi la fi ñu baree bari ñëw ku demee ne ay sëñ jàng ne sillemee ginnaaw bi la ñëw ñoom Seydina Aliou tamit ñoom fi leen nekk ginnaaw bi tamit ñoom ñëw na ak sëñ Cheikh Diop daanaka kuréel gi mën naa ne foofu la déparé ñuy dem di dem dem ba ci yàgg ñu commencé di répété ba mu yàgg nag gars yi commencé ñëw ndànk-ndànk ba jamono jii ku xool kuréel gi xam ne wax dëgg yàlla mi ngi dox bu baax a baax ndax bu njëkk sunum njàng dañ daanaka dañoon daje daayira rek jàng mun gisante waatee daayira moo doon la doon doonaat waaye jamono ji wax dëgg yàlla depuis ñu commencé répété ba léegi daanaka yàgg na lool ba léegi wax dëgg yàlla ñu ci gis avancement bu baax a baax képp ko xam ne nag da nga fee nekkoon maam 2007 boo fi ñëwaatee di nga xam ne daayira bi am na am na changement bu baax a baax a baax ndax euh, répétition mosu fee daaw foon am te léegi mi ngi am bu baax a baax ñi ngi répété njàng mi ñu ngi ciy gën a yeewu baax a baax wax dëgg yàlla daal ñun ñi nga xam ne daal bokk nañ ñi fi jiitu euh, xam nañ daal njàng maa ngi dox bu baax a baax ndax départ bi ak fi ñu toll jamono jëm am na différence bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo kon mbir mi daal mi ngi dox mi ngi dox bu baax a baax waaw loolu sawar naa jee tontu wax dëgg yàlla xanaa <coughs> kuréel goom ku ne xam na ne maanaam euh, dañ ko teg ci loxo sëriñ sëriñ Seexuna mii nga xam ne mooy répétition waaye waaye jëwriñ kuréel mooy sëriñ Seex Jóob kon dafa am ñoo xam ne ñoo ñoom ñoo yor wàll woowu ñoom ñooy ñooy saytu daa jin war daa jin war a jàng su ko defee waxtaan ci xool seen biir maam naka lañ koy doxal bu ko defee doon ko ànd ci mbooloo mi ñun ñëpp ñu ànd ci muy loo xam ne wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi koy ñu ngi koy saytu bu baax a baax wax dëgg ñu ngi jël njàngu mag ñi ñu ngi koy ñu ngi koy àndi bu baax a baax ñëpp di ci jàpp euh, muy loo xam ne tamit wax dëgg yàlla lu ñu lu ñu neex la ndax euh, depuis bi ñu joxee kuréel ga ba léegi ñu ngi gis avancement bu baax a baax a baax ndax njàng mi ñu ñu ànd mi ngi ñaan ñu ngi ñaan njàng mu wér njàng moo xam ne foo ko taxaw jàng ko ñoo xam ne ñii ay jàngkat lañ loolu it wax dëgg yàlla ñu ngi sant baax a baax daal ñu ngi sant baax a baax waaw bés bi ñu jëm si nag muy journée xasida bi moom wax dëgg yàlla sama soñ sama maam sama soññam sama bopp laa njëkke door a soññ mbooloo mi wax dëgg yàlla képp koo xam ne jàngkatu xasida nga rek mboo foofu mu yaa fa jiitu ñëpp te ñu xam ne maanaam mm, na xasida maanaam war nañoo jar lu ne ndax xasida ku ne xam ne ne ki bind bi koy bind maanaam daj na lu te dem na fu ne te daanaka boo seetee moom sax nañ doon voyagé moo gën a métti foofu ni ñu ndax ñun suñu dem yomb na fii ngay toog bu nee suba ci guddi nga fay départ sa oto oto ngay yéeg daanaka bu laal dimbale boo duggee ci oto mën ngaa ne la boo àgg fa nga jëm ci kàttanu yàlla doo am benn coono moom mi ko bind nag daj na lu ne maam day da doon taw ci kawam ak sedd beeg lépp ci kawam la ko def mu doon bind bind kon ginnaaw moom loolu la ko jaral waxuma laa ñun ñi nga xam ne nag ay sagari taalibe dong lañ war nañoo mën a jaar lu ne donte suñu xasida bi dañ weer war naa jar kenn ku ne tëj sa tëj sa place tëj li nga yor lépp dem jox ko Serigne Touba ndax daj na lu noo ngir ñun daal mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara su ngeen gisee jataay bi ngeen xam ne am na lu ko waral muy bis bi nu jub muy journée xasida ñu koy defee fii Touba Argentine ci province Cordoba loolu nag moo waral jataay bii ñu feggeek suñuy jëwrin sëriñ Cheikh Diop sëriñ Sayxuna ak sëriñ Modou Sène ak mboolem waa kuréelu Touba capital bu Buenos Aires di jiital sunu baay Ibrahima mbay yaakaar naa lu mel nii nag bu jotee ñun jànkatu xaside yi ñu jóg def ab soññe lu am solo la soññe bi nag dama koy tàmbalee ci sama bopp ak képp koo xam seen si yaa ngi nab na bi ci xasaay di te di xam ne bis buñ ko jëlee tudde ko bisub xasida loolu lu war la ndax yaakaar naa ne Serigne Touba ci boppam moo ni suhuur yi wa ayaami xëdan li shawaahidun bis yi ak weeri ëllëg danañ ma seede ci sunu borom ni man mi jaamub yàlla laa liggéeykatub rasulillah kon nag ñun suñu jëlee benn bis jox ko xasida yi loolu ñun wàcc nañu te yaakaar naa jomb ni ko jëwriñ seen Mat Seen waxee léegi nag newuñu juróomi fan la ñu semaine la benn bis la boo xayee si ni dañuy xëy dañuy xëy jóge fii dem Cordoba te ci ay bis lañuy dugg dem feete bis boobu jàng suñuy xasida ànd kook mbokki taalibe yi dellusiwaat yaakaar naa loolu sunu faju xaaja zahiran wa baatinan moo ci nekk te ñuy fàttaliku toujours ni borom xasida yi de daj na ci daj na lu na ci xasida yi dem na ba jaayanteeg boromam. jël xalimaam bind ci eh, loo xam ne si ne ci ci deretam la jóge te loolu lépp ngir sunu njariñ la woon kon yaakaar naa sunu nekkee fii Serigne tubaa defal nu xéewal ñu nekk ci xasida yi di ci nab na bi ba benn bis ñu tudd ko journée xasida yaakaar naa bépp jullit waxuma taalibe waaye bépp jullit bu nekk fii ci Argentine bis boobu war ngaa mën a bàyyi sa liggéey dem teewe ji bis boobu ba tubaab yi ci boppam ne lan la Sénégal yi xew la tey ngir ñu delloo njukkal Serigne delloo njukkal xasaay di loolu maa ngi ciy soññ sama bopp di ci soññ mboolem ku nekk Argentine tey déglu suñu kàddu gi di gërëm bu baax sëriñ góor mi nga xam ne nag moo jiite Touba Argentine TV ndax ñoom itam ba bis bi tàmbalee ba léegi tooguñu lépp loo xam si ni lu jëmal liggéey bi kanam la moo ngi ciy dox loolu moo waral mu yàq ay téem ni ñëw fekk fii waa daayira capital bëgg cee def benn reportage waaye sax ku dégg kàddu yi bi Serigne Cheikhouna waxee sëñ Mat Seen wax rek doy na sëkk kon ñun ñii nag dañuy soññee rek di soññ suñu bopp noo ngi ci woo daal képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu di ñaan képp koo xam ne dem nga fa yàlla nay sag faju xaajo zahiran wa baatinan ci barkeb xasaayid sëñ Tuubaa yi wasalaamu aleykum wa rahmatullah